mbokki alhamdulillah ñi ngi war a jël aaya ñaar fukk ak juróom ci suratu ruum ci suñu borom di waxe ni wa min ayatihi an taquma alsamaau wal ardu bi amri إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده, وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين comme sunu mbokk Cheikh Ousmane dafa am ngant tey dañuy delluwaat dimbali ko ci ki nga xam ne mooy Mahmoud Al Kuseyri incha allah mu jàngal ñu. subhanahu wa taala mu ne wa min ayatihi an taquma alsamaau wal ardu bi amri bokk na ci ay kawtéefam mu taxaw asamaan ak suuf ci ndigalam summa ida daakum daawatan min al ard gannaaw ba bu la woo bu leen woowee ab woote ci bu jóge ci suuf ida antum taxrujuun ci noon day ngeen di nekk di génn wala huwa man fi samawati wal ard ñeel na ko mboolem ñi nekk ci kaw asamaan yi ak suuf kullun lahu qaanituun ci lépp da ko wammatul nangul ko wa huwa alladi yabda'u alxalqa summa yu'iidu mooy kay sos lépp lu ñu bind bind ga yépp ca moo koy baamu wa huwa ahwanu alayhi ca baamu waat ko day moo gën a yomb ci moom walahul masalul aala ñel na ko misaal ya gën a kawe fi samawaati wal ard ci asamaani ak suuf wa huwa al azizul hakim mooy ki not lépp ci kattanam mooy ki xereñe daraba lakum masalan min anfusikum mi ngi leen di dóoral misaal ci seen bakkan yi hal lakum mimma malakat aymanukum ndax ñeel na leen ci la nga xam ne faggu na ko seeni loxo min shurakaam fi ma razaqnaakum ci aji bokk ay bokkaale ci li nga xam ne wërsëgal nañ leen ko fa antum fihi sawa ba yéen ngeen yemoo képp yéen ak bokkaale yooyu ca la ngeen moom taxaafuunahum ka xiifatikum anfusikum ngeen leen di ragal comme ni ngeen di ragale seen bakkan yi kazalika nufassilu l ayat nii de la ñuy teqale aaya ya li qawmi yaqiluun ñeel xeet boo xam ne dañuy xellu mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax lenn ci kawtiifam yi nga xam ne ubbi woon nañ ko démb démb bokk na lu ñu jàngoon ci ni ñun ñépp ci suuf lañu jële sunu bay aadama rocc ci ay milliards yu tasaaroo ci kaw suuf bokk na ci ay kawtéef moo ñuy def ñaari mbooloo ñii di góor ñii di jigéen ngiri ak dal di mën a am suñ diggante gannaaw ba mu defee suñ diggante ak jigéen ña lii di cofeel ak yërmande mu waxat ñi it ni bokk na ci kawtéefam moo bind asamaan yi ak suuf moo teqale sunu lammiñ yi teqale sunu melaw yi moo ñu waxoon it ne moo ñu may kattan gu ñuy nelewe may ñu kattan gu ñuy faggoo wërsëg waxoon it ne mooy ñuy won melax gi melax googu di ànd ak taw bi wàcc mu dekkal ci suuf gannaaw bu mu deeyee amma li njàng tey mun a it bokk na ci kaw téefam asamaan yeeg suuf ñu ngi taxaw ci ay mbiram mbokk jullit asamaan bi ñu tiim asama mooy lépp lu la féete kaw jant ba weer wa biddiw yi ban ñu tiimee ba tey lu tax daanuwuñu suñu kaw mbokk suuf si ñu toog benn bul la bu yàlla def muy flotté ci kaw jaww ji di def ay rotation yu bëri di wër boppam di wër jant bi di wër centre galactique bi jant bi lu tax boobu ba léegi tasaaruwul dawul suñ borom mu ni mooy ki nga xam ne yumsiku samawati wal ardi an tazula moo téye asamaan ay lépp lu fa nekk ak suuf lépp lu fa nekk ba duñ nekk di tasaaro wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi te buñ génnoon ñoom ñëpp seeni orbite wala seeni fëlëk fëlëk ba leen yàlla rëddal kenn nu mënu leen faa delloo mooy alxayul qayyum moom rek mooy taxee lu mën a doon borom boobu moo tax mu ne heure bu leen woowee ci suuf benn woote doomu aadama yëpp a génn te loolu mooy gëm gi ngay gëm albaas sunu borom yàlla jalla wa ala heure bu ko soobee mboolem ku mës a dugg ci kaw suuf peek na la kenn rëccul dana wàcce ab taw bu jógee kaw asamaan taw boobu dekkalaat en doomu aadama yi ñu dekki comme ni lujum yi di dekkee jàppal ay reenu ñam bi wala lu mu mën a doon seen jëmm yépp defaruwaat ci biir suuf gannaaw ba suñu borom yàlla daal di jël seen ruux delloo leen ci daal di sant israfil mu ëf ci béjjën bi su ëffee ñépp daal di jogandoo benn yoon gis ngeen ñépp jogandoo ay ci benn waxtu donte ne ni daan jogandoo ci seen mbaax nga yonent bi alayhi salaam ne la man maay jëkk a génn sama bàmmeel li ngi noonu ala kulli xaal borom bi nee na mboolem lekk ci kaw asamaan yi muy malaaka ya ak biddiw yaag lum jant baak lum mën a doon moo ko moom mboolem lekk ci kaw suufit moo ko moom ca loolu yow yaa ngi bokk ci moomeelug yàlla gi waaye koo mën a fonk yaakaar ko it jaamub yàlla la borom bi nag ne lépp a ko wommatul kullun lahu qaanituun su dee ñi gëm muy malaaka yi ak jinni yu baax yi ak nit ñu baax yi wommatul lañ yàlla ci seen xol ak seen jëmm amma bu dee ab yéefér xolam nangulul yàlla waaye jëmmam nangul na yàlla bu gaa yi ndax yéeféer am na droit wax du ma feebar ndax yéeféer am na droit wax du ma màgget ndax yéeféer am na droit wax du ma dee déedéet suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo la bind moo la moom sa yaram bi nangul ko mu lay màggatal di la feebaral bis bu ko neexee mu rey la ca loolu mënoo ci dara kullun lahu qaanituun waa ji mu sant julil mu bañ topp sport baak caaxaan ya su ko neexee paralyse ko à l'hôpital un an am déet loolu lépp ci kattanam la jalla wa ala kullun lahu qaanituun waaye noonu nga jàpp ne noonu la ko jant bi nangul weer wi nangul ko biddiw yi nangul ko xataa ndox yi nangul ko moo tax mu yónni leen woon ñu alak qawmu nuux la nga xam ne nii moom mooy sawara nangul ko bañ ci sànni ibrahim mu ne ko bu ko lakk ku nii bardam wa salaama la nga xamee ni ni mooy ngelaw yi nangul ko moom la yónni woon ca waa aat ay kullun lahu qaanitun lépp suñu borom yàlla da ko wommatul looloo tax booy wikku wikkul ci moom booy muslu muslu ci moom amul lenn lu mën a lor lu dul kum jox ndigal moo tax julit day wax bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fi l ard wala fi sama dara du lor lu dul lu yàlla subhanahu wa taala joxe ndigal kullun lahu qaanitun borom boobu mu ne lum mën a doon moo ko sos te mbokk benn créateur moo am muy suñu borom jalla wa ala nga xam ne lépp lum mën a doon moo ko sos te nee na loolu muy sos dana ko delloowaat te looloo gën a yomb te loolu lu waay dof dof nangu na ko te jiiba demoon ci adduna bi yépp am na lu ñuy nangul li ñuy tuddee créateur ci yi ñuy jëfandikoo masalan portable bi ki ko defar dafa am benn brevet buñ koy nangul boo xamee ni nii moom moo ko créé léegi nag képp koo xam ne nii daf koo jël créé daal di defar bu mel noonu am na droit porter la plainte nga fay ko ay ay ay ay ay ay ndàmpaay lu waral loolu mooy loole moom la ñu tuddee ay fals loolee sàcc liggéeyu keneen la ndax liggéey lu ñu liggéey ba pare loolu amul problème li jafe kay mooy créer loolu mooy la jafe loolu it moo tax xatta woykatu caaxaankat yi boo demee lu ñu tuddee BSDA mooy bureau des droits d'auteur waaw nga xam ni ci créer aw woyam heure bu déggee keneen di ko woy am na droit dem porte ko plainte nag way wii kat maa ko jëkk a way ba déposé woon ko ci bureau bi lu waral loolu ba tey mbokk mooy baamu loolu lu yomb la li jafe mooy sos moo tax suñu borom nag ni lépp loo gis muy dund lépp loo gis ñu koy jëriñoo ci ko asamaan suuf borom bi nee na maa ko soso ca baamu ko lu ma yomb la mi ngi tontu yéeféer yi nga xam ne li ëpp ci ñoom gëm nañ ne yàllaa leen bind waaye gëmuñu ne àllaaxira loo moom lu mën a nekk la sunu borom nag ne lahul masalul aala ñeel na ko misaal yi gën a kawe ci kaw asamaan yi ak kaw suuf ba ko suñu borom awalan mooy dara melul ne moom waaye it la nga xam ne mooy ay melokaanam ak i turam da ngay gis doomu aadama mën na am lum ci am mais kenn du dab yàlla jël ci misaal lii di yërmaande suñu borom tagg na ay jaamam yu am yërmaande xatta suñu yonente sallallahu alayhi wasallam suñu borom nee na bil muminina raufur rahim waaye suñu yonente nee na yàlla yërmaande bi mu ko bindee da ko def té téeméeri yërmaande juróom-ñeent fukk baag juróom-ñeent mi ngi ko gardeel jaamam yi ko gëm benn yërmaande ba la wàccee ci mindaafan yi boole ko nit ñaag bàyyuma yaag jinne yaag ñépp ñoo bokk benn yërmaande boobu kon dañuy naan diw ko am yërmande la yàlla ko am yërmande la mais ndax yërmande ma sàmba dañ koy méngale yërmande ma demba déedéet kàttan nit noonu la demee am na tuuti kàttan gu may ci doomu aadama yi mais ndax kàttanu yàlla dañ ko méngale kàttanu keneen déedéet xam-xam it noonu la demee borom bi ne wa ma utitum min al ilm illa qalila Moussa alayhi salaam jommal xadir ci xam-xamam benn picc ñëw tag ci gaal gi samp sàllam ci géej gi daal di din naaw Moussa ne ko gis nga xadir na ko gis nga Moussa sama xam-xam ak sa xam-xam ak xam-xam boori mi mbindaa fan bañ ko doon mingale xam-xamu borom bi du toll ni li picc bi jël ci géej gi kon lahul masalul aala ñel na ko misaal yi gën a kawe ñi koy wutal doom xamuñu ñi koy wutal moroom xamuñu ñu jàpp ne am na lu lu mu tële xamuñu ñu jàpp ne am na lu mu xamul xamuñu ay borom boobu lahul masalul ala fi samawati wal ard te mooy al aziz bi nga xam ne dara tewu ko jalla wa ala mooy al hakim bi nga xam ne lu ne fa mu war a tege tege na ko ñi koy wutal misaal borom bi mu ne kaay ma dóoru leen benn misaal ci seen bopp ndax kenn ci yéen lim am ci wërsëg am jaam bu mu moom dana jël wërsëgam woow jël ab jaamam ñi yem ci képp balaa def dara tàggu jaam bi balaa maye dara tàggu ko ñi mu wuccaa laal lu ko jaamam joxul ndigal ngeen ragal ko comme bu doon kenn ci yéen gor na yow nga bokkal alal ji na nga koy ragale nga ragal noonu jaam bi ndax loolu mën naa nekk donte nag nag ndakaaru xamul luy jaam waaye bokk jaam mooy loo xam ne moomeel la yaaka moom bu la neexee dem ci marché bi jaay ko soo dee say doom ñoo koy donn mi ngi noonu yow na kenn nekkul ci la nga koy liggéeyloo loolu kon xam nañ ne ku mel noonu nooy nu muy yemeeg yow ci sa alal noo koy ragale noo koy tàggoo nu muy ñemee def loo ko joxul ndigal naka noonu nit mbokk mboole mi mbindaa fa ni ay jaami yàlla la loolu tax yàlla du ci tàggu kenn yàlla du ci seet ragal kenn yàlla du ca jomb def kenn lu ko neex moo tax mu jël bàyyi ibrahima réeral dig ne da ko yóbbu sawara dem kër Nuux jël jabaram ak doomam réeral dig ne da leen di yóbbu sawara ci kenn mënu ci dara da ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag mu ne ñii lay leeralee samay aaya waaye aaya yi ñan ñoo ciy jëriñu mooy jaam yi nga xam ne dañuy xellu yal na yàlla boole ñu ca ñoom bal ittaba alladina zalamu ahwaahum li am kay mooy daa topp ña tooñ seeni seeni bànneex bi gayri ilm ci lu àndul ak benn xam-xam fa man yahdi man adala allah ana kon mooy mën a jubal ku yàlla sànq wa ma lahum min nasirin te du leen ñeel kenn ku leen di dimbali fa aqim wajhaka liddiini xanifa taxawalal sa kanam ñeel diine ji nga nekk aji jéng lépp lu mën a doon fitratallah di bindi bindug yàlla gi allati fatara annaas alayha nga xam ne moom la bind nit ñi ca loola laa tabdila li xalqillah ak coppite day du am ci mbindug yàlla zalika diinul qayim loolu day moom mooy diine ju jub ji walakin aksara annaasi laa yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi ñoom nekkuñu ñuy xam muniibiina ilayhi ngeen di doon ñuy dellu ci moom wattaquuhu te ngeen doon ñu koy ragal wa aqimu salaa te ngeen di taxawal julli wala takunu min almushrikin ngeen bañ a bokk ci bokkaalikat yi min allazina farraqu diinahum ñooñu nga xam ne teqale nañ seen diina ja wa kaanu chia ñu nekk ay parparloo parparloo kullum xisbin bi ma ladayhim farixuun bépp mbooloo doon ca la nga xam ni parti bu nekk ca la nekk ca moom ñu nekk di ko bégee mi ngi noonu mbokk suñu boroom muy wax ni képp kuy bokkaale ca zulmu buñ ko boyelee ci alquran rek shirk lay firi donte nekki lekkaale lu jàmbur mi ngi def zulmu ñooñu nga xam ne zalamu ay ñiy bokkaale ak seen boroom suñ boroom mu ne day topp ñu yàlla topp ñu ay bokk ñu yàlla bokkal dara seen bànneex rek kon seen bànneex rek lañ topp seen bànneex lañ topp ci loo xam ne teguñu ko ci benn xam-xam ca mbokk jullit tamit ñi ngi noonu amul kuy woo leen dul yàlla amal ko dalil en waaye ngay gis fii masalan bu fakastaloo ne yaa cheikh diw soo ko woowoon na ko mais yow ban preuve nga am ne cheikh diw mi faatu woon depuis mille neuf cent nangam ñu suul ko sa fakastalu gi am na kattan ñooy xettile la lu muy wax amul benn lay ci loolu mais mbir la mu xew ñu jàpp ko rek borom boobu subhanahu wa taala nee na ki yàlla sànq ana ku koy réeral la ku ki yàlla réeral ana kan moo ko mën a jubal te loolu it mbokk moo tax ba doomu aadama bi da ngay boole sabablu waaye boole ñaan yàlla saxal la ci njub yàlla mooy seet jaamam ba ko soob mu saxal ko ci njub amma bu dee yàlla daf la seetaan ci sa réer amul ku la mën a jubal te amul ku la mën a dimbali bu doon looloo abi taalib jub boo xam ne yonent bi alayhi salaam ci këram la yoro bu doon looloo jabari nuux ju jub bu doon looloo bàyyi ibrahima jub ay ki yàlla sànq kenn mënu ko jubal léegi nag yow yonent bi ak yow jullit bi nar a ñëw ba àddunay tukki na nga taxawal sa kanam ay jublul jëm ci sa diine ca mooy la ibrahima waxoon rek wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa jublul sa kanam ci diine yàlla ji gëmal diine toppal njàngalem diine ca moytu bépp bokkaale mooy xanifa moytu bépp bokkaale te it mbokk doomu aadama loolu moo war a nekk jubluwaayam sa jubluwaay ci kaw suuf sa objectif bi gën a rëy ci kaw suuf mooy nu may def ba jaamu yàlla subhanahu wa taala damay jaar ci maçon objectif bi mooy jaamu yàlla damay tukki bitim réew objectif bi mooy jaamu yàlla lu ma mën a nekk lay jubluwaay ba gën a rëy mooy yàlla laa ciy yàlla laa ciy jublu lépp lu ma nar a xañ yàlla ma bala dem seeti la may yóbbu ci yàlla gis ngeen jubalal sa kanam ci diine yàlla ji nga jeng bépp bokkaale te xam ne loolu ci la yàlla bindoon ay jaamam ca coppiteeg yàlla du am ci coppite du am ci mbindug yàlla ca mbokk képp kuy judd yaa ngi juddoo pare pour jaamu yàlla ci jaamu yàlla la yàlla bind jaam yi bépp doomu aadama bu wëlbatiku di bokkaaleeg yàlla rek dañ koo influencé yàqal ko loolu na doon ay waajuram la wala société bi muy dund la wala ña ko yar la ak lu mën a doon waaye yonente bi alei salaam mu ne kullu mawludin yuladu ala alfitra fa inna abawahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani kuy judd yaa ngi juddoo ci mbaaxoog yàlla ña nga xam ne ñoo la yor ñoo lay nax ba nga gëm la yahuud yi gëm wala la nasaraan yi gëm wala la atte yi gëm waaye njubug yàlla ci la ñëpp juddoo da ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala mu ne yàlla it ay kàddoom di soppeeku te mbokk gis ngeen alxuraan ji ñu jàng it moom la ñu leen ci bàyyi islam doon jàng moo gis saxaabaam te mooy valable ba ila yawmiddin doomu aadama yi du ñu dem ba dëppoo ci dara ba mujj diin naa kon nañ ko baaxal masalan tey góor jigéen gu bon gi ndax jàpp ngeen ne daan dem ni nga xamee ni nii dem nañ ba église chrétienne di toléré ñuy dem seen di église yi di leen toléré yu bari loolee parce que ñoom seen diine dañ koy changé nu mu leen neexee Vatican un Vatican deux Vatican nangam am naa ñun suñu diine kenn amul droit changé ci dara looloo tax li xaraamoon du dagan ba ila yawmi diin li daganoon jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu bàyyi ko fi du xaraam ba ila yawmi diin laa tabdila li kalimatillah loolu it mu lay won it li ñu yàlla wax adduna ji bu ñu demee àllaaxira loolu moo fay xew yàlla ne lii mooy saw yoon ku def lii ma mbugal la ku def lii ma teral la laa tabdil li kalimatillah doo dem mukk àllaaxira yàlla di la wax leneen lu bokkul ak lam la waxoon ci téeréem borom bi nag nee na lii day mooy diine ju jub te ku bëgg a jub ca ngay jaar inna hadha al quran yahdi lillati hi aqwam ki nga xam ne moo am diine ju sell diine ju rafet moo ko muy julit waaye keneen ku dul julit bi gëm alquran ak sunna soo xoolee diineem rek xeeb ko soo xoolee diinam rek xeeb ko te dañuy màggale seen statuyaat dañuy màggale seen nangam maa ngi namm ci julliti jullit bi xam alxuraan ak sunna di ko dund waxuma jullit bi judd rek tudd Muhammad wala Fatima ba pare ñu yar ko ci lu kenn xamul waaye diine yi dëgg lañ ca yóbbuwaate moom mooy diine lislaam donte ne suñu borom nee ne li ëpp ci nit ñi xamuñu xamuñu ne la mais yàlla am na ci architecte am na ci ay médecin am na ci ay scientifique am na ci nangam suñu borom mu ne waaw xamuñu lu tuuti lañu xam ci àdduna amma la taxoon ñu bind leen lañ leen di laaj ëllëg yowmal qiyaama maadaama xamuñu ko kon xamuñu dara am déet nan parce que mooy l'essentiel bi nga waroon a xam moo ko xamul ko xamoo dara say boo da nga mën a defar ab roppalaan naawal ko moo waaye xamoo dara pour yàlla laa ya laa yaalamoon aksar naas laa yaalamoon mu lay won it ne mbokk dëgg duñ ko xoole ci mbooloo mu bari nga gis ku dem ci ay daje ni mbooloo mi bëree nga gis benn waay bu génn la koy dar ci ay mbooloo ñu jàpp ne ah kii dal mi ngi ci dëgg ndax mbooloo mi mi ngi gën a yokk ah daje baa ngi gën a yokk waaye mbokk loolu kenn du ci xoole dëgg suñ borom mu ne li ëpp ci nit ñi xamuñu kon dëgg dañ koy xoole te la nga xamee ni ni moom mooy ay tegtalam mais kenn du ko xoole ca mbooloo mu bëri ba ca nekk mi ngi noonu gis ngeen tey ñi ngi nekk fii di wax alquranul karim ci néegu yàlla bi xoolal mbooloo mi tey ji bandakat musiciens yi nekk ci rajo télévision yi bu doon kenn ñu mën fii ranger la ay ay ndëndam bu rëkkee fii ba kenn xamul dana fees dell am déet te kenn du leen woo te mën na am sax léeg-léeg dañuy paas waaw ndax mbooloo mi lam bëree waaye maa ngi dégg ñuy wax kenn ci ndaw yi réew yi kii détourne suñu jeunes yi ñu naan kat moom Paris bi mu defoon am na ko ndax feesal ne Bercy Bercy ca France kenn xamul ñaati milliers de places la ñu ne feesal na ko ah boo dajalu woon tous les duat yi nekk Sénégal mënuñu sax indi dix dixième ceeru Bercy am déet mi ngi noonu fu ko defee kon nga xam ne dëgg kenn du ko xoole ci mbooloo borom boobu nag nee na soo nekkee ci diine dëgg ci taxaw ci ngan la waaye nekk leen munibiina ilayhi munibiina ilayhi seen xol yi jëngal leen ko jëme ko ci yàlla julit bul ragal ku dul yàlla pour yaakaar ku dul yàlla bul toroxlul ku dul yàlla bëggal sa boroom bëggal boo bëggul kenn mi ngi noonu jublul jëm ci moom mooy munibiina ilayhi loolu xol bee koy def waaye nag wattaquuhu encore ragal leen ko ci jëfe ndigal yi bàyyi tere yi ragal leen ko ci jëfe ndigal yi bàyyi tere yi loolu muy loo xam ne lu bari ci Sénégal yi waxuñu ne waaye yàlla xol yi rek lay xool mbokk loolu njuumte la yeneen ci bàyyi sam dane yàlla day du xool seen jëmm yi du xool seen alal ji walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum yàlla seen xol lay xool ak seeni jëf looloo tax nekk leen munibiina ilayhi xol yi nañ ko delloo yàlla waaye wattaquuhu ñu ragal ko ci def ay ndigalam ragal ko ci bàyyi ay tereem ca xam ni lu mu yàgg yàgg mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala wax ñu ci la gën a am solo ci taqwa boobu ca mooy taxawal leen julli ca mbokk doomu aadama bi diineem mi ngi dëgëre na jullim di dëgëre ku nekk yaa ngi am cër ci diine cër ba nga am ci julli ku sàggane julli sa diine nekk diina ju sàggan ku fonk julli sa diine nekk diina ju dëgër suñu borom mu ne bu leen bokk ci bokkaalekat yi taxawal leen julli ca bu leen bokkaale loolu mbokk muy woñe ne ku taxawul julli yàgg bokkaalekat yi yéen a yem am déet yeneen ci bala salaam ko wax al ahdu allazi baynana wa baynahum as-salaa fa man tarakaha tarakaha faqad kafara nee na suñ diggante gi yéefir yi bokkaalekat yi benn miir fi dox miir boobu mooy lan muy julli képp kuy julli kenn amatul droit wax la yéeféer la mais ku bàyyi julli yéeféer nga ku bàyyi julli yéeféer la kon fa aqimu salaa wala takunu min al mushrikin taxawal leen julli ci bu leen bokk ci bokkaalekat yi bokkaalekat yooyu mooy ñi nga xam ne seen diine dañ koo teqalee doon ay parti parti parti bu nekk di bégg la nga yor teqalee nañ seen diine ña ca jiitu woon mbokk te yonent bi doon ñu ko musluloo mooy yahudi bi yonent yàlla Muusa indi diineem ñoom créé nañ juróom-ñaar fukki doxalin yu bokkul ak lu Muusa indi woon moo tax yonent bi alayhi salaam ne ñoom ñëpp sawara lañ jëm ba mu des benn ba lii Isa ibn Maryam indi woon nasaraan yi yokk nañ ci juróom-ñaar fukki gisin yu bokkul ak la Muusa indi woon la Isa indi woon juróom-ñaar fukki yooyu yëpp sawara lañ jëm waaye nee na ma ñëpp sama xeet bi balaa àdduna tukki xam ngeen diine moo gën a yaatu te diine moo gën a yàgg yàlla yónni ko ila kaafatan li naas donte dañu jëkk ñi ci seen xeet la leen yàlla doon yónni amma mu ne balaa àdduna tukki sama diine ji daan ci yokk juróom-ñaar fukki parteeg ñaar waaye ñun ñëpp safara lañ jëm moo tax mu ne dana nekk juróom-ñaar fukki parteeg ñett benn ci dem ajjana saxaaba yi ne ko boobu mooy ban yom yàlla yénni mu ne ma ana alayhi al yawm wa ashaabi li may dunu tey maag samay saxaaba ngallaawaay yow doomu aadama xamal li teqali jullit ñi tey mooy création yooyu ñu def ci diine dañ naan kii lu ma doon ñu ne kii kat moom ab ab sekkeen la waaw lu tax mu nekk sekkeen ñu ne waaw suñ sekk moom la yàlla feeñu woon jox ko nangam ak nangam kii moom suñ njaay suñ njaay waaw lu tax mu nekk mbooloo suñ njaay ñu ne waaw yeneen ci bàle sam moo ñëwoon jox ko nangam nangam suñ jaw waaw suñ jaw yoon nag lu xew ñu ne waaw moom nekk ku nekk en cours de route dafa yeneen ci bi jógee ku nekk indi na lu loo xam ne yàlla jox na ko joxu ko woon ñu jiitu keneen feeñ yàlla jox na ko joxu ko woon lu jiitu ku nekk jàpp ne li nga yor yimul ak lenn ca loolu mbokk xoolal commencé réew bi nga nekk nga xool ñaata mbooloo ñoo fi nekk ku nekk mbooloo bi nga yor jàpp nga ñu li ci li ñu yor yëmul ak kenn dara yëmul ak kenn bal alxuraan bi ñu tiim da ngay gis koo xam ne la mu yor di ko wax gu dégg bëccëg nee na moo gën benn boo ci wax rek moo gën juróom benn junniy kaamil yoo jàng loolu mbokk da nga koy dégg kon kullu xisbin maa ladayhim farixuun ku nekk la nga am yaa ngi koy bége ca mbokk xamal dara gunti neex bidaa bidaa ak a neex gis ngeen am na benn waay bu ngeen wax ne vraiment ibadu yi yéen seen diine ji diine ji baax la mais diine ji dafa géey seen diine dafa géey waay ah amul dara amul folklore amul dara yaa ngi dégg ah mi nga noonu mais mbokk biddaa dafa neex soo demee ci yeneen daje yi nga xam ne biddaa tax ñu daje la fay nekk fettox gu yaag woy yaag jaayo yaag ila axiri dafa neex biddaa dafa neex moo tax suñu borom ne kullu hizbin ma ladayhim farihun ku nekk la nga xam ne yaa ko créel sa bopp loolu moom yaa ngi ciy bégee amma diine yàlla ji dafay doon lu diis ci ñoom waaye yal na yàlla saxal ñu ci tere ñu ca
ثم
suñu boroom subhanahu wa taala mu ne wa ida massa naasa durr heure bu laalee nit ñi ak lor daaw rabbahum muniibiina ilayhi ñu woo seen boroom doon aji dellu ci moom summa ida azaaqahum minhu rahma gannaa ba bu leen mosalee lu bawoo ci moom ci yërmaande ida fariqum minhum bi rabbihim yushrikuun ci noonu benn kuréel ca ñoom ca seen boroom nekk di ko bokkaale yakfuru bi ma aataynaahum ngir ñuy weddi la nga xam ne jox nañ leen ko fa tamatta'u bànneexu leen fa sawfa taalamuun xel sa ngeen a xam am anzalna alayhim sultaana ama ndax ñun yàlla ñoo wàcce ci ñoom benn lay fa huwa yatakallamu bi ma kaanu bihi yushrikoon muy nekk di waxee ci la nga xam ne ñoo ci nekkoon di ko bokkaale wa ida azaqna annaasa rahma heure boo xamee ne mosal nañ nit ñi yërmaande farixoo biha ñu bégg ci yërmaande googe wa in tusibuhum sayyi'a waaye heure boo xam ne laal na leen ak lor bima qaddamat aydihim ci loo xam ne jiitaloon na ko seeni loxo ida hum yaqnatuun ci noonu rek ñu nekk doon ñoo xam ni ñuy ñikki lañu ñàkkatee yaakaar awalam yaraw anna allaha yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir xanaa gisuñu ne yàlla day mooy tàllal wërsëg ñeel ku mu soob di ko gàttal ñeel ko it inna fi zalika la ayatin li qawmi yuminuun nekk na ci loolu ay kawtéef ñeel xeet yoo xam ne dañuy gëm mi ngi noonu mbokk gis nañu lu bari lu suñu borom di fàttali ci saaru makke yi nee na nit ñi day bu dee na lor dalee na dal dañuy dellu ci yàlla toroxlul yàlla te niñ ko waxe woon ci tafsir yi passé loolu mooy mandarga yéeféer yu jëkk ya doon tane dañ ne yéeféer yu jëkk ya tane nañ lu bari ci julli ci tey fañ leen tane mooy ñoom bis bu mbir yi jaxasoo ñu dellu ci yàlla kese amma julli ci tey da ngay gis koo xam ne jamono coono ak jamono bànneex yépp ma ngay wékku ci keneen ku dul yàlla jalla waala sunu borom mu ne kon bu lor ñëwee ñu dellu ci yàlla gis nga lor gi yàlla dana rek bu lor ñëwee bu leen lor dalee amma yërmaande gi yàlla nga ko delloo boppam te lu ci bëri doomu aadama buy tabbi ci lor moo ko sabablu amma yërmaande moom mbaaxu yàlla kese la moo tax mu ne bu leen mosalee yërmaande bu boobaa bu boobaa ci moom nga gis benn kuréel ci ñoom di bokkaale ca loolu mi ngi noonu lu bari ci doomu aadama yi mbokk bu ñu nekkee ci tar-tar néew nañ tar-tar yooyu ñu askane ko keneen masalan dëkk mel ne Sénégal inondation yi fi am kan ngeen mës a dégg mu ne sëñ diw moo ko def kenn problème bi am ci na doon sedd bu tar la tàngaay bu tar la xiif la guerre la doo dégg mukk ñu ne keneen na ko def ku dul yàlla ci yàlla rek amma bu xéewal ñëwee nag moom ñu sante ko keneen ku dul yàlla jàll waala baram boobu subhanahu wa taala nee na nañ loolu def nañ ko ngiree di weddi la ma leen jox te mbokk lañ tudde kufru ni am yàlla jox la nga sant keneen ci aka bëri suñ jamono yi tey dañu yàlla nattoo rajo télévision yi tasaaroo diw naka sant sañ diw rek jërëjëfa sañ diw rek mi ngi noonu doo xale yi génération yi di ñëw xamatuñu yàlla xamatuñu yeneen ci yàlla weddi xéewlu yàlla waaye suñu borom mu ne bànneexu leen ci xel sa ngeen a xam loolu mbokk yàlla yàkkamtiwul firaw na ba mu taxawee ne may yàlla yàlla toog na lu ëpp 40 ans doo ko alak gis ngeen su ko defee kon loolu suñ borom mu ne bànneexul xel sa ngeen a xam nag borom bi mu ne waaw ñii di bokkaale yàlla ak leneen ndax yàlla moo wàcc téere muy lay yu leer yu wone ne man kat man ngeen maa bokkaali diw kookee yonente la sëriñ bu baax la ak kum mën a doon ndax man maa wàcc ci loolu benn lay comme la muy wax yawmal qiyaama isa ibn maryam rasulullah da ko yaa isa a anta qulta linnaasi ittaxizuuni wa ummiya ilaa xiini min duni allah ndax yaa waxoon ñu jàpp la yaag sa yaay doon ay ah ñu ñuy jaamu comme comme comme niñ may war a jaamu isa weddi fa fukki weddi yu tegaloo ala kulli xaal kon mbokk képp kuy jaamu ci leneen lu dul yàlla amu ci benn lay man yad'u ma allahi ilahan axar la burhana lahu bihi amuñu ci benn lay borom boobu nag ni su dee doomu aadama yi dama leen a bette jox leen xéewal ñu bégg ci xéewal googu doonte ne farixoo bi di ko yàlla di jëmle fi mooy bew gan cay bew ñu bew ci seen xéewal yi amma bu dee musiba da leen a dal ca loo xam ne ñoo ko faggu ñu ëpp ci ñoom jàpp ni alku nañu alkaange goo xam ne dootuñu bànnee dootuñu am xéewal ba faw te loolu mbokk ab jullit du ko def jullit gis nañu ni ibrahima alayhi salaam mook soxnaam dund nañu ba soxna sa am juróom-ñett fukki at ak nangam ibrahima am téeméeri at bi malaaka yi ñëwee ne ko da ngeen di am doom ibrahima mbir mi jaaxal ko ñu ne ko déet bul ñàkk yaakaar ci xéwalug yàlla ibrahima dane wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa daalun ana kuy dem ba génne yaakaaram ci yàlla lu dul ko sànku rek am na benn sketch bu bon boo xamee ne nii ñi ngi koy génne ci lenn ci suñ télévision yi mën naa ko wax sax ngir ngeen xam ko muy saa njóogu boobu am na benn sketch bu ñu ko génne ci benn ci télé yi fan yi alors muy wax dafa am benn problème bu ko dal mu dellu ci yàlla gaa yi wër ko mooy sketch yi bon yooyu ñu def avant ñuy dogo yàlla yaa yaa ma teg lii bis ni ko tey dootuma la julul dootuma la wooral ah yàlla yow mi nga xam ne ñi ngi lay def lii mosoo maa may oto mosoo maa may dara léegi pare naa ci yow nangam nangam mbokk loolu kéefër la am na ay mbokk yoo xam ne jokkoo nañu ak moom mu ne loolu bi mu ko defee ëpp na juróom-ñeenti at ñi ko teg ci télévision mu tàgguwuñ ko donte ne ne ko mën a jokkoo ak moom ne ko sketch ba mu defoon ñu koy seetaan muuru àdduna war naa dem te mboolem rajo ak télé bu mës a génn ne lii day maa ko defoon ba ma koy def dama réeroon maa ngi tuub dellu ci yàlla dellu ci ci ci ci diine yàlla ji ndax loolu waxi kéeféer la waxu mën a yéeféer la waaye waxi yéeféer la yoo xam ne nii fokk war nga ko tuub almuhim mbokkoo ab julit day gëm ne lu ko mën a dal ci nattoo yàlla koy nattu rek mais yàlla mi ko ko teg heure bu ko neexee mu teggi ko mu bokk ci lu grave yàlla teg la nattoo natt boobu nga dem ba jàpp ne li c'est fini dootu teggee ko ci yow loolu kenn du ko def ku dul ab ku xamul boromam moo tax suñu borom ni ñoom isahum yaqnutun borom bi nag ne ñi nga xam ne bu ñu amee wërsëg bew bew ñu ngi noonu ci kaw jaami yàlla yi farixoo biha xanaa ñoom xamuñu ne wërsëg woowu yàlla leen koy tàllalal mbokk yàlla mooy tàllal wërsëg ñeel ko ko soob yàllaay gàttal wërsëg ñeel ko ko soob mu ne loolu kawtéef la ci ñeel ñi gëm waxoon nañ ko tafsir yi passé moo di ne wërsëg amul critère buñ koy mën a basé wu amul raison yàlla rek mooy def lu ko neex ay cheikh ngi ni bokk jàngandoo kii am kii amul dara ñii ñoo bokk ndey bay kii am kii amul amul loo mën a wax lu dul rek doomu aadama yi yàlla mooy seet lu leen neex na doon jamono ba ñuy bay demal ci baykat yi seen wërsëg yemul demal ba ñuy napp seen wërsëg yemul mi ngi noonu sam benn waay bu may buy nettali nee na benn patron bi dafa dajeeg moom moom mi ngi yor camion patron bi moo moom camion bi patron bi it ba léegi mi ngi dawal nee na mu ñëw verse ko trente mille patron bi na ko waa yow diw dag may fontoo yow maa ngi nii sama voyage bu ma dem nii nangam nangam am naa ci cent cinquante mille yow amoo loo may wees lu trente mille mu ne ko bu wërsëg yi moom du ma la dawalal ñu ngi noonu maa ngi yow ñoo àndoon di lang yi dégg kon tey boo demee ba am ay camion man may man may lay dawalal yu wërsëg yi yëppul ba tax nga am trente mille man nga am cent cinquante mille am trente mille kon mbokk noonu rek la lañ koy jàppee amul bu la yàlla nattoo sa wërsëg yaatu nga la waay sant ci yàlla bu ko xeebi doomu aadama yi su dee def nga it la nga war a def yàlla nattu la sa wërsëg gàtt santal yàlla ci loolu ndax xamoo bu wërsëg yu yaatu woon nooy mel ñu noonu xamoo bu wërsëg yu yaatu woon nooy mel loola tax suñu borom mu ne ki gëm day loolu da koy doon kawtif moom la yonent bi doon wax naan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr ak yéemi mbiru julit lépp rek yiw la ci moom ndax bu yàlla sottee xéewal yi mu sant mu nekk xéewal ci kaw xéewal bu yàlla indee natt mu muñ muñ gu rafet muñ góogoon bu tukk nekk xéewal ci moom loolee kon ñi ngi ñaan borom bi yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañ koo gëm ca xam sunu boroom jalla wa ala mu ne fa aati zal qurba xaqa joxal jege ñaale yi seen aq wal miskina wabna sabil joxal miskin yaa doomi yoon ya muy étranger yi tumuranke seen aq zalika xayrun lilladina yuriduna wajha allah loolu day moo gën ñeel ña nga xam ne dañoo bëgg la nga xam ne mooy kanamug yàlla wa ulaika humul muflixuun ca ñooñu day ñooy ña nga xam ne ñooy ña texe wa ma aataytu min ribal li yarbu fi amwali nas lépp loo xam ne joxe ngeen ko ci riba ngiree mu daal di fulu ci alalu nit ña fala yarbu inda allah du nekk mukk luy fulu ca yàlla wa ma aataytum min zakatin turiduna wajha allah lépp lu ngeen joxe ci azaka namm ca la nga xam ne mooy kanamagu yàlla ga fa ulaika humul mudifun ñooñu day ñooy ña nga xam ne ñooy lañuy la ñuy fulal allahu alladi xalaqakum yàlla mi nga xam ne moo leen bind summa razaqakum gannaaw ba mu wërsëgal leen summa yumiitukum gannaaw ba mu rey leen summa yuxyikum gannaaw bu mu dekkal leen hal min shurakaikum man yafalu min zalikum min shay'in ndax ci seen bokkaalekat yi am na kenn ku ciy def ci lii ci lu mu mën a doon subhanahu wa taala amma yushrikun sell na ca kawe ci lépp luñ koy bokkaaleel zahara alfasadu fi lbarri walbahr feeñ na ak yàq ci jiiri ji feeñ na ak yàq ci géej ga bima kasabat aydi nas waaye dara waralu ko lu dul ca la nga xam ni nit ñi ñoo ngi koy faggu li yuziqahum ba'da allazi amilu ngir ñu mosal leen ca lenn la nga xam ne ñoom ñoo ko jëfe la'allahum yarji'un ngir ñu mën a dellu gannaaw mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax nañu lenn ci jaamam yi nga xam ne bu tàllalee seen wërsëg dañuy daal di bew suñ boroom mu ne diit du noonu wërsëg yu ma la jox yaatal ko mu dem ba ëpp sa aajo ngalla waay xoolal say jegeñaale nga jox leen ci seen aq ca tamit ci bari ci doomu aadama yi boo xoolee famille yi leen yàlla tasaare famille bu nekk yàlla dana tey def koo xam ne su dimbali woon famille ba nam leen war a dimbali coono dana fa wàññeeku lool ala kulli xaal sa alal ji sa mbokk jegeñaal yi am nañ ci aq bul am alal denc alal di dul jeex gis say frère gis say nijaay gis say bàjjen ñu nekk ci coono ca nga denc alal joo xam ne xamoo kan nga koy soxla waaye gannaaw ba it bul yem ci ñoom ñi nga xam ne dañoo aajowoo di miskin amuñu lu leen doy yow yàlla may lu ëpp say soxla loolu ëpp nga nar koo denc jëmale fu kenn xamul jël te jox leen ca ngir ñoom ñu mën a am dund gu dal léeg-léeg it nga gis ku yàlla na too mu nekk ci dëkk bi tumuranke fa mu nekk sax xëy na am na lu mu fa am waaye tumuranke na ba sonn fii ku mel noonu bu dee lam nekk ci dëkk mënu caa jot nañ ko jàppale ba mu mën a continuer aw yoonam sunu borom mu ne lii day mooy li gën ñi ñeel ñi nga xam ne dañoo def te yàlla tax te it mbokk julit am na ñu bëri ci doomu aadama yi ñuy def lu bëree bëri ci yàlla taxut ñu ngi noonu ñoo ngi def jëré ñu tagg leen gërëm leen te kenn jiituwu ci jigéeni Sénégal bokk jigéeni Sénégal ñoo créé loo xam ne adduna bi ñoom rek ñoo koy def masalan nañ gis koo xam ne mën na économiser économiser dugg ay tontine ay du kenn xamul pendant des années tey ñu ne day ngénte doomam mu daal di dem ci pénc ma daal di làng woo géwal yaak ah caaxaankat yaag yépp commencé waaw diw maa ko jox piis bi diw maa ko jox alal ji diw maa ko jox li pasar pasaree ay millions ñoo amul million ay centaine de mille ila axiri loolu mbokk da ngay gis yàlla taxut yàlla taxut dama aadama bi li ngay def dee ko joxe ci yàlla tax bokk ñu luñ doon wax ci ay xutba yi passé ñu wax leen ak neexoon jigéen Sénégal fu ñu ko ndeyeele mu dem dépenser fa cent mille mu jël dix mille xool ay miskin sarax leen ko ci yàlla tax mooy dix pour cent bi rek mi ngi noonu foo demee ndawtal fa dix mille nga jël mille franc jox ko moom ci yàlla tax te xam ne mille franc bi moom xam nañu ay puukaree tax ndax ki nga bokkal ndey ak bàyyi ngeen bokk lépp bala nga ko jox ndawtal dañuy bàyyi ba ñëpp a teew ñu ne waa sa rakk ji nga xam ne mooy nangam nangam neen ilaaxiri mbokk riya am noos alal ji mi ngi noonu kon it lépp façon dépense dama leen ci tudd rek waaye bépp façon dépense booy joxe te yàlla taxut dara doo ko ci am moo tax mu ne li la dina yurujuna wajha Allah borom bi nee na ñu mel nii day daañ leen fulal ay daañ ful seeni tuyaaba te yowmal qiyaama comme yàlla dana ful seen alal fii ci àdduna te moo tax suñu borom nag ne man maa leen bind mi ngi noonu mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala mu ne lépp lu ngeen joxe ci alal ci alalu nit ñi ngir am ci riba xam leen ne loolu du yokku ca yàlla te tey li nga gis depuis jamono yu jëkk ya ba suñ jamono yi tey muy am na lu ñuy tuddee ay intérêt waa ji dañ koy lebal cent mille buy fay fay cent dix mille banque ya yéen ñëpp xam ngeen dafay xew suñu boroom nag nee na alal jooju lu mu bari bari bariwul ci yàlla ay lu tax mooy yamxaqullahu riba mbokk gis nga alalu riba lu mu fu fekkoon da koy yàq masalan tey amoon nga un million boo xamee ne nii mënoon nga caa faj sa soxla nga dem dugal ci cent mille riba sa cent mille riba yooyu mu nekk un million cent nga jàpp ne kon yokk na ci nombre bi waaye wallahi qualité ba wàññeeku na un million yee la nga ci mënoon a def mën na am bu doon 500000 yi sax dootoo ko mën a defeti fokk nga am ay tolof tolof yu bëri na doon ci wàllu santé la ci wàllu leneen ci wàllu leneen investir yu yàqu fokk yàlla subhanahu wa taala màbb ko amaa nag mu ne li ngeen joxe ci zakat mooy waa ji moom dafa jël alalam mu jël ci génne zakat te zakat bi bi ko yàllay wax zakatu farata xewagul mi ngi ci namoon zakat lépp loo génne joxe ko ca yàlla tax zakat ma nga xew ca madina ay nekk màkk di wax zakat yépp sarax lañ ci jublu kon koo xam ne alalam da ciy jël sarax seen borom ni ulaika humul mudifun pour nga gën a mën a dégg ñaari gaay yi ngi ni ku ne am na un million kii jël un million leb la ko ñu tegal ko ci cent mille donc il a un million cent waa ji moom un million mu teq ci cent mille sarxe donc neuf cent mille la ko dese maa ngi leen di seedeel ci yàlla ne neuf cent mille yooyu dana faj lu un million cent ba fajul ndax neuf cent mille bi yàlla dana ko barkeel un million cent bi yàlla da koy moxoñe yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat loolu tax kon julit day moytu riba waaye julit it day yëg ne alal ji loo ci génn jël joxe ko da koy yokk waaye du ko wàññi suñu borom mu ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu lu ngeen dépensé man yàlla dinaa leen ko wutalaat borom boobu nag ni moom day moo ñu bind ñun ñëpp te moo ñuy wërsëgal na am wërsëg buñ ko waxee sa xel dem ci alal waaye déet moo ko julit xoolal bi ngay ñëw yàlla la wërsëgal ay bët ndax gisoo ko amul ay bët yàlla la wërsëgal ay loxo ndax gisoo ko amul ay loxo ndeysaan maa ngi gis xale yi lu ñuy wane ci internet bi nii benn waay boo xam ni yàlla da ko nattu amul ay loxo amul ay tànk daanaka benn buul la rek mais dafa jàngal xuraan lu wattu ko ñi ngi koy wane muy ci téere bi ndeysaan bëñ yi lay keppee feuilles yi di tourner xool ma loolu yow nag yaa ngi génn say loxo say tànk yëpp a génn du yàlla la ko wërsëgal la dégg gi yàlla la ko wërsëgal kattan gi yàlla la ko wërsëgal gannaaw ba soxna si wërsëgu yàlla la doom ji wërsëgu yàlla la lépp loo am ci alal lépp loo am ci lu mën a doon wërsëgi yàlla la subhanahu wa taala kon mu ñuy wërsëgal waaye gannaaw bi suñu borom mu ne moom moo ñuy rey loolu moom kenn weddiwu ko kenn weddiwu ne moom da nga mas a dee waaye it moo ñuy dekkal ndax moo ñu amaloon bu jëkk ca moo ñuy dekkalaat borom bi mu ne ndax bokkaalekat yi am na ku ciy def dara ci lii déedéet mbokk julit yàlla rek kay bind yàlla rek kay wërsëgal yàlla rek kay rey yàlla rek mooy dekkal ñu ngi noonu su ko defee loolee da ngay gis suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne sell na mooy yàlla mi nga xam ne sell na ca kawe ci lépp luñ koy bokkaaleel amma ci jeexitalu dars bi suñu borom nee na yàq day bëri na lool ci jiiri ji yàq gi tool yi takk la nga xamee ni nii moom mooy ay jafe-jafe yu doomu aadama yi am waaye nga dem biir géej yàq ga bari na fa lool maa ngi dégg rek tey ñuy wax naan Sénégal ay 2010 2014 y a plus de 400 morts yu am ci géej loolu yàqu ga bari na fa lool waaw léegi suñu borom yàlla mu ne lu waral loolu nee na lu waral loolu mooy bakkaaru nit ñee ko waral heure bu désordre amee taw amul ba mbay mi yàqu inondation am ba kër yéeg àll bi yàqu bakkaaru nit ñee ko waral day yi takk bakkaaru nit ñee ko waral bato yu suux bakkaaru nit ñee ko waral lii heure bu ko ab sénégalais di jàng war a tiit ñun nee nañ fi mag ñi fi yàlla denc ci jàmm rek a fi xew ca mbokk borom xam-xam yi histoire yi dëppoo nañ ni li ñuy tuddee catastrophe maritime mooy musiba bi am ci géej bi gën a rëy bi ñu xam ci histoire mooy le bateau Joola xamuñu ci àdduna benn gaal gu mas a suux yóbbaale mille huit cent soixante personnes officiellement donte ne mat na deux mille personnes loolu Sénégal rek la am te suñu borom nee na foo ko fekk bakkaaru ko waral te wallahi benn waay mi ngi nettali koo xam ne nii yàlla na yàlla gindi ko waaye nee na moom daana jël bato Joola aller retour caaxaan kese ko fay yóbbu bëgg tukki sax yóbbuwoo ko foon almuhim du question ne dafa yem ci borom bato ba waaye mbokk waa réew mi la su ko defee ñu xam ne Sénégal mbokk li fi nekk ci shirk bari na la yàlla moom ñu jox ko keneen ku dul yàlla bari na su ndaw ñi ña leen di détourné bari na li fi nekk ci ay caaxaan bari na borom bi nee na catastrophe du am lu dul ne ay bakkaar moo ko waral lu tax nag yàlla mu ne ngiree ñu dellu gannaaw lool de moo tax chance la ci ay julit yàlla teg leen natt pour natt bi dellu leen gannaaw ñu tuubaat dellu ci yàlla waaye yàlla na fekk ne am nañu ay kilifa yu leen mën a delloo ci loolu bu dee ne da ngay gis ne li ëpp ci nit ñi tey nit ñi mel noonu la ñu mel natt lu mu tar tar tar tar du tax ñu dellu ci yàlla ci dara du tax ñu dellu ci yàlla ci dara a ngi fàttali ko xew-xew bu wasaam Sénégal soo laajoon mag ñi dañ la ko wax mooy mas nañu fi maral maral bu tar ci bori année quatre-vingt yooyu maral bu tara tara tara ah soixante-douze waaw non li may wax li may wax ay ay xëy na romb na foofu ala kulli xaal booba Abdou Diouf moo fi nekk ñu gis ne kii di sëñ Abdou yàlla na ko yàlla jéggal ci yërëm ko ngi noonu daañu dem ne dafa bëgg ñu ñaan yàlla ñu joxe ordre ne nañ tëj baar yi yépp place yi musique yépp bëgg ñu dara yëngu ci Sénégal bis boobu ñu ko def mu commencé Dakar ba Kolda Matam lépp taw ba fees del waaw gars yi ndax lii ah Senghor la woon mooy premier ministre ah waaw d'accord kon moom waaw ñii ñoo gën a fekkee alhamdulilah nee na jamono Senghor la woon waaye Abdou Diouf ba ba mu ko ko waxee moom moo jëloon décision ba alam almuhim mooy Sénégal gépp taw bokk na lu ma cay dolli bi ñu xëyee suba sëñ Abdou dégg ñu naan ah si si saa waane daa dellu ca rajo ba ne leen hey taw bi du taw Abdou dama ne nañ tëj caaxaan yi ñëpp ñaan ndax xam ngeen ko yàlla nangu ñaanam kon ñun ñëpp nañ bokk sant yàlla jazaahullahu xayran ci jëf jooju loolu mbokk dañuy wane ne kon suñu borom mi ngi doon wax nekku leen ci yoon wi waaye léegi bi ñu dellusee ci yoon wi yàlla tawal ñu est-ce que la gënoon nekk xel dañoo waroon a sax ci loolu waaye ñu ne ah taw na baax na kon ubbi leen baar yi ubbi leen naan kële yi ubbi leen nangam nangam ñu noonu alhamdulilah donte ne doomu aadama bi liñ naan place bu nekk la fay ñuul mooy fay ñàkk ñi ngi sant yaay yaa jàmme donte ne xëy na d'accord ñoom moom ci jëfinam yépp waaye ñi ngi sant li mu def nee na weeru koor bu baax muy jeex gam bi yépp bëgg fay dégg ndong-ndong mi ngi noonu waaw lépp luy musique ak baal ak yëngutoog taxe fayeg weeru koor jeexul ku ko def ci gam bi dina la tëj loolu mbokk da ngay gis au moins lu baax la lu am solo la moo gënoon kilifa diine bi ngeen xam yéen ñëpp bu woote ci rajo ba télévision naan waaw yéen musiciens yi bu tax weeru koor jot ngeen naan da ngeen di jël congé mais liggéey leen li ngeen di liggéey kon koor ak yëpp war ngeen di liggéey yaa ngi dégg loolu kon mbokk mi ngi noonu yal na yàlla delloo ñu ila siratul mustaqim yal na yàlla fegal ñu bakkaar yi nga xam ne mooy tax mbugalam di wàcc ci ñun te may ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad